parce que gisatoo da ngaa lëndëm bët yee lëndëm àllaaxira pour yow existé am ñoo xamante ni jigéen mën na leen dugal ci fitna yooyu mbokk yi moo tax yonant bi doon muslu yàlla ci ñeent saxaaba yi doon ko jàng kom ni ñuy jàngee faatiha te jullit bu nekk war koo def ci sa taaya bu mujj balaa ngay sëlmal ndax ñeent yi garaaw la ci sunu kanam. moy allahumma inni a'udhu bika min al-qabr wa min adabi jahannam wa wala an-nar wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati masih ad dajjal ñent yi di gëna yées bala ngay wax assalamu alaykum ci sa julli yonent bi neena de ko ñaan allahumma inni a'udhu bika min al-qabr yàlla ma ngi ñaan nga musulma ci mbugalu bàmbe wallahi mbokk lu gën a metti mbugalu bàmmeel amul amul kenn nag kuy mucc ci naju bàmmeel naju bàmmeel ak mbugalu bàmmeel du benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen na lawla an tadaafanuun la daawtu llaha an yusmiakum adab alqabri alladi ana asma su dul woon nag li kenn ku nekk di suul moroomam bàyyi di suul doom doom di suul bàyyi dom di suul yaay di ke rakk di suul jëkkër di suul jabar kon dinaa ñaan yàlla ngeen dégg mbugalu bàmmeel bis bu ngeen déggoon bàmmeel la fa nekk yéen ñëpp di ngeen changé allahu akbar ndeke di nga ñëw ci armeel di indi ay nit di suul si ay nit ndeke am na ñuy yuuxu nekk ci ay fitna di jooy doo ko dégg amaan na sax bàmmeelu ki nga taxaw di ko ñaanal mi ngi jahannam yàlla ci yàlla musal na amaan na sax ki ngay ñaanal am ci moom yaakaar mi ngi ci lëndam yu mu xamul fu mu dem yonent bi nee na bu du woon ak suulante kon dinaa ñaan yàlla ngeen dégg mbugalu bàmmeel ni ma koy déggee ni ma koy déggee moo tax muslu leen yàlla ci mbugalu bàmmeel yonent bi nee na su kenn doon mucc ci mbu ci najug bàmmeel najug bàmmeel ak mbugalu bàmmeel bokkul naju bàmmeel première phase la boy njëkk jot bo duggee bàmmeel ku dugg bàmmeel ci ñun bala la malaka yi laaj ñent mbir yi suuf dina la nek dina la nek ba bo deful ndànk meew ba nga njëkk a toqamte ko ci sa yaay di ko wàcc yonent bi neena bu ci kenn law najja ahad min dammati alqabr la najja min sa'd ibn ma'az الله akbar يرن النبي صلى الله عليه وسلم ني سو بن بنديف دون موتي تي ناجو بامل كون سعد بن معاذ دنا تي موتي موكي سعد موي سيد بني الانصار من نيكون سانغو الانصار سعد دا فباخ دا فرغال يالله تي اب خاري لا نكو جام فيت بوج mu ne yonent bi du ma dem sama kër ci jàkka ji lay toog fañoo fii foofu la toog ba gaañu saat moomu mbokk yi bi mu gaañoo yonent bi ne ne ihtazat arsu rahman li mawt saat arasu yàlla day jaañu na lu tax mu jaayu Saad ibn Muaz moo gaañu kon kii fi mu àgg xam ngeen ko mbokk yi ba yonent bi waxam ci moom lii loo xamante ni jaral na arasu yàlla mu jaayu ci daraja ci kawe bu ko yàlla ndax nag lu yonente bi am madina Saad ibn Muaz moo ko liggéey ak Saad ibn Ubaada mbokk yi keroog Saad bi mu gaañoo bi ñu koy suuli yonente bi baaraam bu dijj bi la doon doxee doxewul tax ba da nii mais baaraam bu dijj bi su ma génnoon mu leen ko expliqué maanaam comme nii di da nit di def bu yu xóol yonente bi noonu la doon doxee nii gars yi di muy teg tànk di teg ci côté mu mel ni ku am lu muy moytu bi ñu paree saxaaba yi laaj ko ni ko waaw yonente bi yow dañoo gis bi ngay dox yaa ngi copp say tànk di def côté bi def côté bi mu ne malaaka yàlla yi dañoo feesoon tel tel tel kaw suuf moom laa doon moytoo ci biir dox bi mais saab moom li muy rëy rëy diñ su àjjana yonente bi nee na suuf nag nga ko ba mu tiit mu dog koo bàyyi te doog koo laaj yàlla mu sot fa kay fa ñun ñun ñun moom am nañu ñoo xam ne dañ leen a certifié ba sax du ñu dee ñun moom am nañ ñu dul dee làkk na nelaw na ngay dégg ma nga ca njoowaane arasee nanga ku gën a rëy saad amul ci umma bi ginnaaw abou bakar umar ak ñetti saxaaba yi ku ko gën a rëy amu ci mbokk mais bàmmeel nag na ko kon muslu ci mbëggalu bàmmeel tey bi ngay ñëw ci bàmmeel bu dee alal ji danga nga koo amee woon lu lewut ay disque d'or nga amoon ay soulier door nga amoon ay paliru door nga amoon ay lan lan ñu lay tagg ci ay dor door door oto yi rafet ran duróofa yi kanas yi ñi yépp taxaw yépp nga bàyyi ko fi tey yaa ngi dem ñu la def ci kees di la yóbbu kan mooy dem musicien bi gënoon a ngand la star diva nangam nangam ñu dàqoon lay kàddu tey ñoo gën a mën noppi ke doon yuuxu naan la star star africain nangam nangay dégg baatam tey dana mbokk moo koy yàlla ko yàlla jéggal mbokk yi foofu la ñu mujj ñun ñëpp tey ana range yi lu mu mën yi nga range lu mu mën tey yenu nañ la yenu nañ la jëme la fan bàmmeel bàmmeel boobu dee ko muslu saa boo balaa nga assalaamu aleykum dee ko allahuma inni auzu bika min azaabil qabr ñaareel bi wa min azaabil naar yàlla maa ngi muslu jaw ci mbugalu safara mbokk yi safara ku fa dugg da tas doo ko dajaloo waat bu ne tëll dugg rek ñu tëf dajaloo waat kullama nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan wal iyaazu billah yàlla nañu yàlla musal ci mbugal bàmmeel wa min fitnati l mahya wal mamat yàlla musal ci fitna yi dund ak fitna yi dee fitna yi dund mooy jaay sa diina ngir alalu àdduna jaay sa diina ngir tur jaay sa diina ngir am-am jaay sa diina ngir ngir ngir tey fitna yaa ngi taxaw sa kanam bëri na ñee tey ñeewul boppam day làqatu di jooy su génnee ñu tudd ko nangam nangam moom xam na ni yàlla xam na ni lii mu am du lu lew du lu dagal mais tur la bëggoon léegi am na ko jeex na gis nga nit boo yéegee ba fa nga war a àgg wàcc rek moo des alal nga doon ut jaral na la sacrifier ay bakkan jaral na la ne àgg nga ba au sommet ñu ngi naan diw alal bi diw nangam diw kay diw nangam diw nangam loolu nga mënoon am mënatoo koo romb kon par force wàcc moo des dem nga ba yëg au sommet nag xam ni musiba nga def nag ku nekk nga ni ko ñaanal yëkkati xaalis dimbalal ñaan dootu ko régler parce que da nga jaay sa am da nga jaay sa àdduna ngir sa looloy fitnatul mahya wal mamaat fitnay dee dara gënul ñaaw ci jullit muy dee di tudd lu yàlla bëggut dee di tudd lo xamanteni xam ngeen ni mos ki faatu li ñu soxla ci mom man kana akhiru kalaamihi la ilaha illa allah dakhala jaana képp koo xam ne mujj kaddo moy la ilaha illa allah day dem àjjana yàlla ko yàlla lo te loolu mooy mujj garab motax ndaysan ki ma maa dajje ak mom ci suñu ben mbokk bu faatu muy bari xam ngeen mbokk bobu lu ñu wax ci mom sama xol bi da fa sedd guuy ñépp seen xol yi seen jeune ndaw du ma di faatu wallahi ki toogal fi mu nee na kaddu gi mu njëkk a wax mooy dafa def nii baaraamam ne laa ilaha illa génn àdduna allahu akbar yàlla nañ ko yàlla defal mbokk yi loolu mooy teraanga kaw suuf suñu njort ci moom yàlla bu ko yàlla teggi wa fitnati almasihi dajjal nga ne yàlla maa ngi muslu ci fitna yi dajjal mi ngi ñëw dajjal avant muy ñëw ay jigéen lay jiital àdduna bi tey jigéen ñi lu leen neex def libre nañ maa tey mooy yàlla yii mooy préparation yi ñëw dajjaal musique tëgg fecc jouer théâtre jouer film tey loolu la jigéenu julli ñuy njëkkante koo gis ci jigéen ñi tey pare na pour dem nekk benn artiste suñu jigéen ñëpp lañ ay artiste lañ jouer ay film théâtre rusatuñu góor ak jigéen ay sénégalaises di jouer théâtre tëdd ci benn lal sangu te du ngeen jëkkër ak jabar pour ñoom loolu non non non loolu garaaw la ay dafa bëri coow rek mais loolu dara new ci <laughs> xoolal lu garaaw lii parce que tur nga bëgg borom maison production yi tey lu leen neex la ñuy def lan moo tax jigéen ñi dootuñu am arrêt dootuñu tiit dootuñu daw dootuñu raf parce que never mind amatul tiit dara parce que dajjal moo leen yabal ci lool la dund moo tax mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax nii taawadu billahi min fitanin ma dahara minha wa ma batan na ngeen musul yàlla ci fitna yi la feeñ ak li nëbb gis nga fitnatu shubuhaat moo gën a garaw yépp nag mooy fitna boo xam ni da lay lëndëmal ndax diine nga koy jàppee te du doon diine te boo du diine joteeg nit ñi te ñemewoo wax ni diine la ndax yàlla santaane day dem ba li araamoon ci turu diine la ñuy jaar di ko daganal mooy tëgg ak fecc ay ndaw di ko def dëkk ci koñ yore ay guurt ay bédo rëgëj rëgëj di tëgg di di sikkar turu yàlla di tëgg léeg-léeg sëriñ bi génn gën a ñàkk jom ñépp fecc ba xolam sedd dem boo nee du diine ñu dafa attaqué suñu ngëm-ngëm dafa attaqué suñu nangam say loolu la ñuy dund mbokk yi tey ñi naan yàlla nee na yonente ne il faut ñu am retenue am na looy tudd ñu ne lay xas tey ci baas tant tant bu ñu tant ne yonent bi lañ ko tàntal wala tant diine la fa ay paa di fecc ay meer di fecc ay nitu diine di fecc mais tànn beer boole boo fa dem paa yi ku nekk sa kurus naan loolu dafa xaram te dem mu nga fecc ci cant gi da ngaa tànn ñuy fecc fenn bu ñëwee sax di war a tànn ndax xam na ñoom ci lu xaraam lañ nekk mais sa problème da jàpp ne li nga nekk diine la sëriñ bi nag mooy nekk saay-saay bi gën a mag day ñëw fecc ci seen kanam wala leen ni xool leen dara newu ci tëb yëngatu fecc ñaqal diw feccal diw kuy tëb ci diw kuy nàngam ci diw loolu la ñuy tuddee diine fitna booboo gën a grave bokk na ci kama qaala azza wa jal wa laqad wassayna alladina utu alkitaba min qablikum wa iyyakum